nuyu nañ leen yéen mbokku téléspectateur ak yi safo di ñu déglu mercredi bu jot ci seen émission en ligne en ligne nag tey jii nii euh, dikkaat ak euh, beneen kàngam bi nga xam ne mu ngi ci réew mi waaye tey jii nii dañuy def un peu entorse à la loi euh, xaw a tegee politique bi nañ ci ñëw sax waaye dañuy gën a yaatal ci li nga xamante ni moom mooy économie bi comme souvent on nous taxe de ne pas poser le débat économique euh, tey jii ak fu rew mi toll dina bax bu baakha bax baax ñu wax ci tuuti ci li nga xam mom modi walum di wàllum koom ndaxte au-delà de la politique bi également moom mooy doxalum rew pour ñu daal di ci wax nak euh, dañuy am mbégte bu baakha bax di dalal ki nga xamanteni mom modi euh, président Serigne Boub Serigne Boub ñu ngi lay nuyu di la dalal. ma ngi lay nuyu di dalal bu baax di len dalal absolument alors euh, président Serigne Boub, bu ñu koy wax président chambre de commerce bu Kaolack y a dit également union des chambres de commerce du Sénégal il y a dit que bi di CCBM loolu yëpp bu ñu ko tënkee day dem ci li nga xamante ni moo économie alors bu ñu démarré ci wàllu chambre de commerce bëri na Sénégalais yi di chambre de commerce di dégg chambre de commerce mais tey ni si gàttal su ma la doon laaj lan moo chambre de commerce pour ñi nga xamante ni xamuñu waaw Badara bi ma la nuyoo gërëm la c'est vrai que da nga ne da def torche pour que noo ko en torche un peu à la loi. mais je pense que loolu loolu mooy loolu mu loolu la ñu war a mhm. parce que àdduna bi booy xool seen programme yi réew yu développé yëpp muy États-Unis muy France yëpp la plupart des activités c'est économique. Mhm. donc ñun suñu bëggee jël ne saa yoo bëggee wax ci économie dafa mel exception la. Mhm lu mais c'est bien que ngay wax ci économie bon chambre de commerce parce que euh, nous ma la ko rek. Mm-hmm. l'assemblée nationale des opérateurs économiques li ko tax a jóg cadre de concertation bi nga xam ne ni moo war regrouper opérateurs économiques yi xam nga association wala patronat. Il y parti politique Nous ñooy wut délégués par électif par euh, élection pour que les délégués représentent la chambre de commerce La chambre de commerce normalement si vous avez des bi yépp le conseiller consultatif de l'État en matière de l'économie en matière de l'économie globale en tout cas toi, tu bi ñu fi nekkee utiliser nañ chambre de commerce parce que réglementation commerciale je donne un autre exemple boo demee en France un ministre de commerce rôle ministre de commerce chambre de commerce moo A def amuñ ministre du tourisme chambre de commerce moo faire. def ministre de formation professionnelle chambre de commerce vais def parce que c'est des activités économiques mhm. yoo xam ne nii c'est directement rattaché aux opérateurs seen bopp euh, mu amaat benn boo xam ne nii dana mën a jàppale entreprise yu ndaw yi pour conseiller leen pour wutal leen partenaire pour aussi tamit servir leen relais pour fu ñu mën a dem ci àdduna bi fu ñu mën a dem ci àdduna bi je pense en sorte que mooy mm-hmm. li nga fait le cadre de concertation et de représentation et de dialogue pour l'ensemble des entreprises économiques. Absolument. Voilà, que tu sois agricole ou ci secteur boobu mën na yëngu wala même entreprise presse bi yëpp. tout à fait seen de commerce tout à fait alors ce euh, que wax solo euh, surtout exemple France bi nga jël. rôle chambre de commerce ñom parce que école de commerce yi ngay dégg France chambre de commerce SSC mhm. de commerce BM. BEM Bordeaux Management. bi am filiale fii au Sénégal. filiale Sénégal chambre de commerce bu Bordeaux moo ko moom. ñoom ñoo ko moom mais bu jëlee ci gàttal chambre de commerce euh, démembrement de l' état la comme ni ko mairie yi doonee alors est ce que tey jii état euh, am na considération boobu noonu ci assam ci li nga xam ne moom moo di chambre de commerce yi par rapport ak surtout yéen opérateurs yi liggéey bi nga xamante nii yéen yéen a koy def. waa loolu c' est vrai des na mais man euh, dama jàngaat ko xam ne ci ñun la. ci yéen yi. waaw parce que ñun bu ñu fonkul suñu institution bi nga xam ne mooy institution bi nga xam ne ni moom la état bi war a reconnaître ñun fonkuñ ko dañu préféré kenn ku ne sa association bopp wala sa patronat bopp jël ko nag dooleel boobu parce que peut-être boobu mën nga fa def li nga bëgg tandis que chambre de commerce mënoo ko institution publique la et tamit. Euh, mënoo fa yóbbu sa bopp il faut que ñu nga am confiance su opérateur économique yi nga xam ne nii ñoo inscrit nekk en règle pour ñu dem fa. Mm-hmm. bon euh, en réalité moi je pense que état bi sax daf ko daf ko affaire boobu daf ko réer daf ko réer ba mu jaakaar ne institution privée la. Mm-hmm. da ngay dégg léeg-léeg bu ñu amee problème ñu naan yéen war ngeen a mën a waxtaan seen biir ba juboo absolument te demewul noonu. Mm-hmm. chambre kon dafa amee règle décret moo ko réglementé waaw xam nga doo dégg benn institution état <laughs> ñu naan waxtaan leen ci seen biir ba juboo en privé mën nañ wax ne waxtaan leen ba juboo mais réglementation la am lu waa ñu réglementé ko dañu war a jaar ci charte yooyu. parce que gis nañ sax ay mairie bu problème amee sax soit ñu indi délégation spéciale teg état bi moo koy indi mais souvent yéen ci chambre de commerce yi toujours état loolu la wax régler leen seen problème yéen la. yéen seen biir Il am ministre tutelle ministre du commerce tutelle technique un ministre tutelle financier un ministre tutelle administrative administratif moy le euh, le ministre de l'intérieur chaque fois que chambre de commerce di vote voté budget gouverneur région bi day ministre de commerce Il y a un représentant ministre de des finances un représentant voilà l'ol dal la xamné ne man dama japp né mhm. état bi comprendre ko bu baax mais ñun tamit ñoo ko waroon a dooleel favoriser ko waaye dañoo bàyyi gën a dooleel suñu association yi loolu moo tax. ñu xaw a am kon association yi am na li nga xamante ni euh, nanguñ ko wax ci kaw am na ay intérêt crypto personnel yoo xamante ni moom moo tax nit ñi moom la ñu gën a fonk au détriment de assemblée nationale euh, li nga xam ne moom moo di seen euh, chambre de commerce yi. waaw xam nga association yaa ko moom. yaa koy juddal. Mhm. yaa koy rey yaa ci dugal ku la neex yaa ci génn ku la neex. état ci euh, état Il ci tandis <laughs> que chambre de commerce c'est normal que euh, nit association ne ah man parce que pour mon exemple man man utiliser comme moyen de pression <laughs> parce que une chambre de commerce du syndicat du syndicat on est partenaire de l'État cest à ñun dañoo war a lamp torsu niital état bi ne ko boo defee lii ak lii ak lii moo gën. Mhm. niital entreprise yi bokk yi nga xam ne ni ñoo tëdd créer euh, cadre boo xam ne ni. Mhm. Euh, entreprise danañ ci gis seen bopp looloo tax soo demee fu mel ne réew yu développé yëpp. Mhm. ay port ay aéroport ay tribunal arbitral yëpp chambre de commerce la nekk. tout a fait mais est-ce que association yu patronale yu bëri yi nii ci réew mi réew mel ni Sénégal. est-ce que du fragiliser seen activité yéen en tant que opérateur. bu fekkee boole wu leen doon benn xam nañ ko sax ñoom sax ñu ngi koy waxtaanee ndax wax dëgg yàlla soo demee ci réew yi ñu wër muy Gambie. Mhm. Gambie benn patronat lañ am amul ñaar soo demee Mali loolu lañ am soo demee Mourtani loolu lañ am soo demee Côte d'Ivoire loolu lañ am Sénégal rek moo fi nekk ak multitude de patronat et ci biir day réer ci parce que. suñ dajee léeg-léeg ñoom ñooy waxtaan ci biir ne diwo war a wax léeg-léeg ñu ne la diwo yi wax kii frustré. Mm-hmm. wala ñoom ñëpp ñu teg leen ku ne wax donc je pense que amul sens. Mm-hmm. bon euh, man dama jàpp ne état ni mu taxawee ba fexe ba def élection. représentatifs des syndicats des syndicats. on mhm. na taxaw élection des représentatifs des patronat. Mhm. ñu am baat wala ñu ñoo mhm. pour que l'État soit wax ak ñooñu su waxee ak des. mais bon réunion on appelle des dizaines ou vingtaine d'associations ñi ne ñi de te l'objectif de l'état le partenaire de l'état mooy l'état moom benn bopp bopp la am waaw benn bopp su ministre bi ñëwee benn bopp la am administration bi li ministre wax la def mais sooy négocier ñoo xam ne nii yow wóor na ne nekkuñ benn bopp ki day wax fii jaar fi kii wax fi jaar fii kii wax jaar fi looloo tax man ma yaakaar ne su demee ba amuñ considération walla lu ci bari mënuñ ko def. ci yéen la ci waaw am nañ ci part de responsabilité. absolument am ci ñun la sax lay wax. Mhm. mais l'état am na ci part de responsable parce que l'état moy moy moy baye ñep moy yaay ñep mo mhm. wara taxaw régler ay situation parce que am loo xam ne boo ni buñ ko xolé mi ngi yàq économie mi ngi koy yàqal mom mhm. mom mo wara set solution nan la yeneen réew yi def bañ am benn patronat. parce que moom leer na su fekkoon tey l'état état dafa jël ne partenaire am. ci cadre dialogue mooy chambre de loolu décidé nañ ko chambre de commerce mënoon am ñaar benn rek

liggéeyam ak partenariat bi nga xamante ni moom ngeen di nuyee ak ñoom nan la. mais c' est bien xam nga COSEC. Mhm. chambre de commerce doomu chambre de commerce la doomam. Mhm. COSEC historiquement chambre de commerce ñoo ko créé parce que lan la mooy pour que chargeur yi dajaloo di cotiser ci benn affaire pour que kooku di défendre ses intérêts mooy tey képp kuy importer di indi conteneur COSEC moo nekk sa syndicat bi war défendre sa intérêt. xam actuellement ce qui se passe au Sénégal moi les compagnies de transport les compagnies de nekk port kenn ne connaissent pas ce lu def mais normalement qu'est-ce que war a jouer rôle moi je reconnais bien que l'actuel directeur Diambar la. am esprit d'ouverture parce que li ngay xam c'est lim que ben prédécesseur am def en termes de construction chambre en termes d'ouverture en termes de de de c'est-à-dire de dialogue mais il faut conseiller le parce que conseil d'administration je reviens encore pour te dire que c'est le patronat qui est fait voilà chaque fois nous essayons pour wax nañ yeneen pour redynamiser conseil pour permettre que M. Roulem mais day melne ne dañ cee dañ cee dañ ko téye daal pour ñoom. Mm. te euh, bu la nexé nga xol conseil d'administration bi man du ma du ma sama nga ñi ci nek ñëpp. ci patronat bi lañ ne. déedéet duñu ay import normalement waruñ fa nek parce que duñu ay importateur, duñu ay exportateur. c'est uniquement pour les importateurs et les exportateurs. Mm-hmm. mais ña nek ñëpp di siéger di wax ci tour importateur exportateur. c'est des impôts affairistes. te du ñu ay importateur xam nga des sax ay affairiste mm-hmm. mën naa am sax ay opérateur économique lañ mais nekk opérateur économique taxaw nga nekk membre COSEC. absolument mën nga nekk opérateur économique di tabax bâtiment mm-hmm. mën nga nekk opérateur économique nekk financier nekk directeur banque ñooñu bokkuñ COSEC COSEC ñan ñoo ci bokk mooy conseil sénégalais des chargeurs dégg nga. Mm-hmm. mooy conseil sénégalais de chargeurs. comme conseil sénégalais de transport a mhm. conseil sénégalais des services il ñi nga importer ak exporter Nous ñoo ci a nekk élire l'Assemblée générale élire mhm. élire conseil d'administration, pour euh, défendre leurs intérêts. mais je pense qu'il faut respecter une règles. règle de respecté wuñ règle dañoo xëy ne diw yow ñaari dala ngay am diw ñaari dala ngay diw ñaari dala ngay am te loolu respecté loolu mm-hmm. ñiy cotiser ñoo war a taxaw élire seeni délégué élire assemblée nationale euh, assemblée générale mm-hmm. assemblée bi élire conseil d'administration bi avec trois onze lañ trois yi état am fa représentant huit yi c'est du secteur privé mm-hmm. mais l' état mooy nommé directeur général bi loolu mooy réglementation bi directeur général bi état c'est un vrai partenariat public-privé mhm. dans le cadre de concertation C'est d'un même un budget autonome. absolument tout à fait alors je vais vous wax ci présentation il y a PDG également bu CCBM alors c'est automobile au Sénégal Oui, la toll. waaw xam le déficit ci sénégalais qui mhm. parce que euh, bon on a une domination domination étrangère solo. Mhm. Euh, parce que Sénégal ñaar fi nekk entreprise tout bi mhm. euh, ak état bon depuis un certain temps l'État bi li muy jënd ci oto yu ci bari ci entreprise mais il a ses raisons parce que il a Il choisir mhm. faut choisir marque il faut choisir marque yooyu ay tubaab bu koy def. du mhm. ma tudd marque pour publicité mais euh, conseil man nañ ko joxe xeyna su waxe kenn ku ne da ngay ràcc. Mhm. moi je suis d'accord que l'état état jënd ay auto yu cher auto yu bax mhm. mais soo demee ci réew yu développé yëpp dañuy soutenir seen secteur de l' automobile national parce que ñun gëm suñu réew. Je suis ñu dem installé de montage les employés sénégalais Nous fi fait depuis des années nous ngi fi am capacité de montage war def defuñ ko kon ñun c'est vrai que l'État, en terme d'exonération et tout ça soutenir mais en terme de production des na bon raison bi mooy peut-être euh, dañu bëgg oto yu gën a mag yu gën a dëgër mais sur ça dañu war a xool. Mhm. xam nga le président de la république wax na ne l'État a dépensé beaucoup d'argent mais tey boo demee ci administration yi ñu ne la administration amuñ oto. Mhm. xam nga lu ko andi état day jënd oto yu chair ñu jox ko ñan duñ budgétiser entretien oto yi yàqu cest à soo demoon tey fii garage su état bi. Mhm. ay oto yëpp nga parce oto état mën na paan dara trois cent mille la koy defar. Mhm. budget bi génnul ñu wàcc ko fu mu yàqu. déwén ñu gënaat bu bees. Mhm. dégg je pense que loolu le président de la république war na ko war na xool war na ko xool e li gën a baax comme yeneen réew yi def du fait que état c' est état garder oto trois ans. Mhm. wala quatre ans ñu gën oto yomb. suñ gënee oto yomb. Euh, parce que oto bi nga war a jëndee équivalent. bo xamné da nga gëné 40 millions. man nga am équivalent auto buñ monté fi équivalent à 15 millions. Mhm. mais en réalité auto 40 millions 15 millions mënuñ yem dëgëraay. absolument c'est-à-dire su fekkoon tay yow da nga entretenir auto bi jër 40 millions nga téyé ko diko entretenir bu baax. Mhm. d'accord man nga né man na am 20 ans mais auto bi ngay xamné ni tamit mu nga 15 millions boo entretenir bu baax. mën naa am dix ans mën naa mais ñoom ñaar ñëpp boo leen entretenir wul deux ans trois ans la ñuy def ñooy yem. waaw loolu la ñooy yem boo oto bi lu mu lu mu baax baax. ak lu mu yées yées ci entretien bi rek la ñuy am durée de vie. waaw bu dul loolu lu ñu baax baax wala lu mu yées yées. mais mais mais état ci commande publique bi amul benn pourcentage boo xam ne yéen réservé na leen ko. non en matière de l' automobile amu ci. ah bon xam nga état sax dafa dem ba ci biir. Mhm. mu ne on réserve pour les nationaux. mais en réalité amul. parce que dafa am lu ñu réglé wul. parce que soo nee on réserve pour les nationaux da naan lii mooy national mooy entreprise bi mooy entreprise nationale. état dafa réglementé wul loolu daf ne entreprise national mooy bu ñu fi créé. sa état bu jëlee décret sax na léegi lii c'est réservé pour les nationaux. su chinois bi ñëwee créé fi entreprise. nationaux nationaux tandis que ce sont qui pays chinois et Amérique mhm. l'entreprise nationale l'entreprise, entreprise bi nga à majorité des américains ou bien mhm. des chinois. Mhm. mais nous, dañ entreprise nationale mooy entreprise bu crée. tout à fait voilà a autre sens de dire que je réserve pour les nationaux ou bien je ne réserve pas pour les nationaux. absolument solo ci économie bi mais mënuñoo dem ci deuxième partie peut-être de nous wax ci un peu ci politique et développement. Mm-hmm. gis nañ né mm, au delà de président de chambre de commerce Kaolack bu may wax euh, yow ya dem jël euh, yeggali travaux yu cœur de ville bi. Mm-hmm. ba tay jii ni euh, installation yi nga fa def ak li nga xam ne moom la fay générer comme en terme d' emploi gis nañ ko fa. Mm-hmm. alors gannaaw chambre de commerce cœur de ville alors tey jii nii Serigne Mboup li muy yóotu moom mooy mairie bu Kaolack. alors est ce que. dafa bokk ci conditions yi nga xamante ni tey jii il faut nga établir ko pour yeggali sa Pastef ak li nga xam ne moo di bëgg-bëgg bi nga am pour kaw Kaolack. waaw xam nga bu doon sama business bopp rek soxlawu ma jël mairie parce que li ma dara daj ci mairie bu ma ko dajee ci samay relation am ku lu ëpp ci Kaolack. comme maa ngi noonu ba su fekkoon tey xam nga li ma bëgg a wax su fekkee tey lu mu mën a doon su fekkee marché laa bëgg su fekkee terrain laa bëgg lu mu bëgg mën naa ko damaa gëm ne man dama gëm ne collectivité locale du poste politique parce que politique ñun Sénégal ñoo ko yàq mais politique man dégg naa ñu ne ci grec lan la moo euh, ah? bien gérer la cité waaw gérer mhm. te alxuraan daf ñu wax ne bëgg sa réew ci gëm yàlla bokk. yonent bi ne ku toppatoowul mbir nit ñi ku leen toppatoo doo jul fale sami naa mooy bokkoo ci ñun. xam nga mhm. bokkoo ci yonent bi doo jullit man nañ ko wax. ah man loolu moom ma ci poussé parce que li ma ci gis mooy dama ñu bari dañu yaakaar ne gérer affaire publique dafa difficile difficile mhm. moo gën a yomb xam nga mhm. xam nga yow da jël sa xaaliss créer société investir dem jënd produire wala nangam pour am bénéfice bénéfice bobu nga am droit muy say charge mais mairie da ngay tok ñu jox la taxe ñu jox la taxe ki nga xamné dañ koy jox xaaliss ne ko demal nga dugg nga def nangam def nangam def nangam ñëw tok yek ak ki nga xamné ne dañuy ñëw togal ko ba paré dik ci ko ne ko séddale xam nga ne kooku moo war a gën a efficace. Mm-hmm. kon man damaa ragal ne bis bu ñu dugalee vraie ci collectivité locale mën na am ay résultats ay résultats extraordinaires extraordinaire pour lent de la population et dimbali état bi parce que da ngay xool tey état ne peut pas être partout. Mm-hmm. loolu tax ñu créer ay conditions transfert de compétences. ah. xam nga transfert xam nga en réalité poste ministre poste président politique moo fa yóbbu nit mais nit ki bu fa xasee nekk waratul agir parce que politique la. dafa war a agir parce que citoyen lay waxal du dëgg. kon mairie tamit loolu la mairie sax moo gën nekk poste citoyen kon man damaa ragal ne politiciens yi ñoo ko jël. Mhm. mais waruñ ko woon a jël. ndax attention man gis naa ci ci ci ci archive yi Senghor conseil municipal est dirigé par un administrateur civil nommé par le président de la République. Mhm. mais ay conseillers mhm. mais nommés par comme ni conseil mel des conseillers privés. Mhm. nommés par un directeur directeur boo xam président de la République kon tey man ci Kaolack bi ko xoolee. da ngay xool ne situation bi complique nangam mais lu yomba defar la. waaw lu yomba yomba defar la. Kaolack ñetti affaire rek ngay rek la wala ñeent fexeel bañ am. Euh, système d'assainissement bu baax. Euh, système correct des ordures bu baax parce que boo créé loolu. Mhm. nga def assainissement bu baax te réglé woo collecte des ordures ordures yi mooy dugg ci canaux mhm. système de collecte des ordures bu baax te jafewul mbedd mi produire des déchets. ñi la nit ñi ñoo produire mais organiser leen ma nga ni, ne nii kenn ku ne këram dana am fu mu ko teg nga ñëw jël ko kooku boo ko defee ah danañ ko nangoo population boo koy supporter mm-hmm. beneen bi mooy nga def système d'assainissement assainissement sax mën nañ ko def mën nañ ko def intermédiaire mën nañ ko trouver solution Kaolack man bi ma demee gis naa ne mbedd yi ñoo nivelé wul moom lañ moom lañ nivelé wul sa sa kër gi mhm. bu dee fii dafa jóg fii wàcc fii jóg dafa wàcc foo jaar fekk fa kàmb mais buñ ko organiser woon nivele ko mhm. ndox bi bu ñëwee de circuler te ndox buy jóg di circuler rek place bu mu nekk rek mën na jël c'est-à-dire day taw lu mu taw taw taw bu pare une heure de temps après mu jeex mais gis nga fii day dugg fii day beneen bi ci def mooy kër yi dañu gën a suufee. <laughs> mbedd mi yooyu yëpp c'est des choses à corriger. tout à voilà à corriger. <laughs> et en même temps soo paree tamit du loolu amee te kër yi condition économique yu tax nit ñi am liggéey am liggéey mën a jóg ci seen yëf bopp ndax dem naa. quartier bu mel ne Ndar bu ndaw avant ñuy wax salte bi avant ñuy wax euh, assainissement bi mm-hmm. mais dëkkuwaay yi dëkkuwaay yi mu nekkul dëkkuwaay yu baax kon ñun ci programme bi ñu bëggoon a teg il faut ñu xaar nan lañ mën a defee losement sociaux xam nga maire yi dañuy wax rek ne mënuñoo def mënuñoo def mm-hmm. mën nañoo def pour fay salaire autant que li ñu bëgg embauché ay mii ay trois cent quatre cent personnes mais mënuñoo def lu jëm ci investissement soo demee ba am budget trois milliards mën nga def investissement bu baax sax bu baax mais boo ko jëlee yëpp utiliser ko pour fay salaire pour dépense pour carburant pour jënd oto pour def yëpp. ah non après tu n'as rien à ah, am naa population bi dana toog ne mais lan mooy njariñu maire parce que li waroon na njariñ moy salaire de gestion des affaires de la cité moy nit ñi seen tout li ñi am jox lako ko nga dajale ko pour defal len lu ñu mënta defar parce que man tay sama côté kër buntu kër mi ngi ta mhm. mais mënuma ko defar mhm. lu tax parce que man je ne vois pas honnêtement ma jël defar sama buntu kër bam mu baax sama voisin ma bayé ko ben voisin bayé ko keneen ma bàyyi ko mhm. mënuma ko defar non ah mënuma ko def comme mi ngi mel suma nekké kaw la amna groupe mais bu courant coupé mënuma ko ta c'est respecté. parce que yaa ngi bàyyi xel population bi ñi nga xamante ni seen i gën na seen loxo yeggul seen ginnaaw c'est un peu euh, ni ñu koy waxatee manque de considération à l'égard de cette partie de la population. dëgg la dëgg xam nga dañ ne mënoo faj soxla boo dundul. Mhm. man damaa jàpp ne politique yu bari li leen yàqal mooy xamuñu lu xew ci seen commune mën nañ dëkk ci benn quartier. à 100 mètres mëno am do fa xam man dal nama bimay wër di wër inondation dem na fa ne mais nekete à 100 mètres amna amna inondation 100 mètres de chez moi kon bi nga dëkk oui 100. à 100 mètres dama jéggi tali bi rek seen lo xamné ni gisuma ko mhm. parce que su fekké yow da ngay politique té nit ñi bo ñëwé euh su dara amé dañ dunu yobbu fi problème bi am mhm. ah, ñen ñi parce que gis na ni dem na fenn ci ay daru salam yépp ñu ne ma fi politicien mosu fa ñëw lu tax moom mooy bu ñëwee danañ ñu seet si waaye ci tali bi lay yem mais mënoo xam la xew ci biir. absolument xam la xew ci biir et moi je pense que ku ci doon dox di génn di dox di gis ba gis la xew ci biir da am solution pour régler ko parce que jafewul. Mhm. la la mooy sa relation ak Mariama Sarr. non. Euh, je pense que amuñ am amuñ benn relation. Mhm. bu bu bu bu bon. gisuma ah man ci sama côté rek la mën wax mais le fait que mo bëgg maire bi ah je pense que man na am mom mo am intention une négative ci man mais man pour man c'est normal soo nekkee ci dëkk war nga mëna bëgg maire bi mom tamit war na mën a góorgóorlu tey élection ñëwagul mën na gorlu gëna gor gor parce que mom mo yor léegi moi, j'ai plus de chance pour moi, pour que ñu gën mon rôle, parce que je pense que li ëpp solo ci nit mooy defal lu baax boo defee lu le jor ngay politique jor ngay ay campagne mm-hmm. ñun chambre de commerce man waxuma la le ma defee lu baax Kaolack waxuma chambre de commerce Kaolack mais président chambre de commerce ñu ñew gis Kaolack dikk ne ma kaay ñu ne ma le président de l'union mm-hmm. kon man je pense que ay relations personnelles kooku munuñ ci am bu munuñ ci am dara lu yàqu wax dëgg yàlla. absolument alors euh, peut-être une avant-dernière question euh, bu ma gisee sa parcours ak li nga xam ne moom la dugal pour nga jël mairie Kaolack beeg discours yi nga xam ne moom mooy indi alors est-ce que Serigne Mboup dafa gëm ne moom dafa ñëw ngir révolutionner la façon de faire de la politique comme bi ñuy def gënul dafa indi beneen méthode bu bees pour def politique mooy bi nga xam ne moom moo gën ci li nga xam ne moo di askan bi non demewul noonu xam nga boo nee sëriñ boobu rek da yàq njur la. moi je pense que su ma ñemee Kaolack dafa am ñu ma gemb parce que su ma yaakaar ne man maa mën a changer dëkk ba. damay trompé wu. Euh, keroog wax naa ko opérateur économique yi nee naa leen il faut que mu nekk suñu affaire su nekkul suñ affaire mu nekk sama affaire rek su ma ko jotee dama koy def sama affaire bopp comme ni mu dalee ñëpp. ndax da ngay mujj yow say nitu bop lay wër da ngay bëgg ku lay tag da ngay bëgg ku lay wax mais ñun en tant qu'opérateur économique ñun xam nañ loolu min nañ loolu ñun da ngay fay salaire say employé mais su ngeen toogee réunion ñu né le patron li baax li baaxul té ya leen di fay salaire yaakaar naa fi nga liggé da nga tok ne li baax na li baaxul parce que ñun du doxal kër gi lañ lañ lañ bëgg ah certes sama ambition

yëkkati président de la république. Mhm. waaw ndax so nekkee ci sa dëkk mat fa maire bu baax je pense que président de la république du bari lu mi lu mi am problème ci dëkk ba. Mhm. ndax lo fa def tamit damay wax gars que maire yi nga nekk opposant wala nga nekk maire xamal ne tu as un transfert tu as une délégation de compétences. Mhm. nga xam ne parce que état bi moo jël compétence am jox la. transféré la ko transféré la ko. du xam nga député il est indépendant député il est indépendant nga yor sa parti politique il est indépendant ndax euh, mairie moo ministère ñoo yem transfert de compétence nga am. Mhm. mais nag transfert de compétence moom li nga war a am mooy da ngay du question da ngay fexe la dama naa def lu neex état pour état gën ma jox ministre jox ma dara naa def luy amal njariñ sama population. Mhm. pour état bi ci population bi kontaan ci état tout à fait ah. alors une dernière question muy actualité par rapport ak histoire générale du Sénégal bi ñi nga xam ne dénkoon nañ ko Iba Der professeur Ibader Der Thiam ak euh, toute son équipe gis nañ ne soulevé na euh, polémique euh, rawatina ci waa kër maam Khalifa Niass ak waa kër El Hadj Abdoulaye Niass bi nga xam ne nga leen bu baax baax alors coow est-ce que jar na ko. waaw xam nga coow moom ki koy coow rek moo mën a xam jar na ko ñun li ñuy wax mooy xam nga yonent bi euh, dafa am sax ñu wax ne ixtilaaful ulama irhamatun mm-hmm. mooy boroom xam-xam yi sax suñu amee wuutee yërmande la je pense que concept bi ñu am rek histoire moom mm-hmm. histoire la histoire moom la wax ne histoire bi mooy bu parfait amul mm-hmm. waaw histoire moom histoire que ku ne am na noo ko mën a liiree waaw mais je pense que man nañ ci jaar nag pour gën a ormal kilifa yi. Mhm. parce que am na histoire yoo xam ne nii même ci l'islam am na mais dañuy tere ku ko nett li mhm. waaw dañuy tere ku ko nett ndax doomu aadama doomu aadama rek. Mhm. moi je pense que yooyu yëpp mën nañ ci ormalante wax ci loo xam ne nii ki bu ko da ciy jariñu mais nit ki bu ko liiree day sentir ne moom. dañ ko tuutal. keneen ki liir ko sentir ne dañ ko yëkkati je pense que loolu lu jar a xool la ndax yaakaar naa histoire bu ñu koy wax rek c'est pour que ñu roy ci. ñu roy ci waaye man dama ragal ne coow li jaru ko. jaru ko jaru ko jaru ko jaru ko waaye xam nga.

on a fixé toujours, toujours, toujours après. non ben interview kay musulman mel ni bii. waaw <laughs> contre temps en ce moment ko def il est à minuit. tout à fait. <laughs> Ah. D'accord, là, loolu tamit vraiment xam naa ne professionnalisme. et loolu amna solo et bëgg maa wax loo parce que je sais que bari na ñoo xam ne ñooy daw pour interviewer et c'est ça qui montre que euh, les journalistes de temps en temps dañu leen di dinañ rapproché dara mais léeg-léeg gis naa ne du ci bari sax da ngeen di xeex pour am ñi am kàddu léegi nag day am nag léeg-léeg ñi am kàddu ñoo leen di sonal parce que man xam naa ne boo doon xaddi moom tey mer nga wàcc ma fi mais c'est bien donc je pense que dans la même manière que tu vois des journalistes yu nekk ci guerre yi di di risque seen vie pour wut information et je eh, vous encourage ngeen di def loolu loolu baax na tout à fait voilà alors ñu doon dalal président Serigne Mboup ci seen numéro spécial en ligne bii nii gërëm ko sant que gërëm également équipe technique bi nga xamante ne ñoom ñoo ma gunge woon réaliser leen émission bii nii surtout numéro bi alors en ligne di leen jox rendez-vous mercredi bi di ñëw ak euh, beneen personnalité d'ici là comme ni ma koy waxee l'information continue sur la référence de caractère.